non ñun sax bëgguñu on n'a pas envie de quitter on n'a pas envie de jeexal tey yeewu leen quoi c'est dommage dañu bëgg a toog continuer ba ci kanam euh, mais bon euh, il faut que ñu dem quoi parce que malheureusement dafa bëri euh, programme <laughs> Eh, mun ci ah. xanaa xamoo ni man dama am ay rab yoo xamante ni rabu xaabaabal la man 10 heures de temps doyuma ci télé rajo lu leer laa la wax et pourtant et pourtant tey ci guddi euh, je dois revenir tey ci guddi euh, dinaa leen proposer night show bu exceptionnel c'est le seul rendez-vous qui permet aux artistes de s'exprimer euh, vendredi dernier ñu ngi nekkoon ak Carlou D ah, mu nekkoon pour xale yi mais tey surprise lay doon à partir de minuit 15 yeah. après bulletin d'information bu minuit je serai avec de grands artistes yoo xamante ni dañuy àndandoo ak ñun maa ngi sama lamine baa ngi xasan. pour wax maa ngi ko bugg a wax. <laughs> mais léegi waa direction programme dañ may yamale quoi mais c'est pas grave di ngeen am surprise euh, ci seen émission night show on en profite ñun ñëpp. Mm-hmm. parce que dañu bëri ay nit. yu mm-hmm. ñuy yóbbante ay bataaxal. pour ñu leen di tudd te bëgguñu kenn mer. Mm-hmm. bëgguñu euh, kenn mer ñun itam waaye mënuñoo tudd ñëpp on va faire une petite tour de table ku ci nekk nga gërëm ku nga bëgg a gërëm parce que mënu ce ñàkk. ah mais juste vous dire lundi. Balla Gaye 2 day ñëw ci yeewu leen. a ah, bombardier bombardier bombardier eh, bombardier bombardier <laughs> lundi on promet bombardier dina nekk ci yeewu leen bi. mardi. mercredi. Balla. xam ngeen kuy ñëw. Balla. xam ngeen kuy ñëw rek xam il le font exprès téye tur bi. <laughs> <laughs> kon yow lañ dóor tey très bien ah, <laughs> mercredi non non mais grawul yàlla baax na ah. mercredi Balla Gaye 2 mooy ñëw ci yeewu leen c'est ça et li gën a graw mooy tey est-ce que vous avez remarqué kenn ratatatiwul

ñun de ay géwél yu mag lañu. yow déggal kii ci suuf ratatati rek ratati wu ñu moom. ratatati la parce que du sama ah, anniversaire anniversaire exclusif. Ah! voilà. ratatati rek. ratatati rek. ratatati rek. ratatati rek. man moom maa ngi nuyu Landor Ndiaye ak uh, Adja Ndiaye ak uh, ñoom ñëpp toute la famille ñoom Maguette. Mhm. man maa ngi nuyu uh, le grand <laughs> couturier ah donc Mame Cheikh Ndiaye foofu ca Waago Ndiaye 2 ah villa 259 maa ngi lay nuyu bu baax moom nag ndeysaan moom assisté depuis mon ex. incha allah loo solo ci maa ko ñëw. moo taxit yaa ngi door Pape Cheikh taay yaa ngi taay moom yaa ngi door Pape Cheikh. 3 ans ngi def télé musuma nangu eh, donc Pape Cheikh. maa ngi yow bëgg ci eh, fer waxaat li nga waxaat li nga waxoon. la 3 ans ci télé. nangu kenn kenn musuma solo ah. gu ah. kenn. musuñu def exaris abiyé par. da nga ne nangu musu kenn musul nangu abiyé la. ah ah loolu yaa musul waaw yow yaa musul nangu waaw moom musul nangu waaw ñu génne noonu ñun ñëpp amee desel am nañu. yow yaay dégg juste que damay souhaiter rek euh, Abdourahmane joli d'abord joli mbay sama doom ak Abdourahmane donc joyeux anniversaire à toi Abdourahmane euh, di ñaanal aussi sama yaay bi nga xamante ne bi ma gisulee sama yaay moom moom loolu tax nga non non séeréwul gisoo séeréwul. ok yow tamit kon bu boobaa du mun a mun a kii di Pape Cheikh. yow kon Pape Cheikh te dañu nekk rek fête vraiment parce que bi sama yaay nekkule fi moom laa gis may nekk liir moom laa ràññee ma gënal ko doom yi mu jur. jërëjëf su yaboo. lu tax may gedd lu tax may gedd maa ngi koy yaay booy aset gërëm naa la. retetati rek rek. yow waxal ma waxal ma xool. alors je lui fais un gros bisou à maman. Coupez-la ce micro. <laughs> <laughs> doo taal sama micro. taalaat naa ko waxal. voilà fête à ma maman chérie Absatou Dioune depuis Italie maman Nancy et puis nga xam ne moo nekkoon sama maman bi ma nekkee Paris ba léegi et sama yaayu meilleure amie euh, <laughs> mère Diallo euh, yaa Binta et tata Aïda gaaw yàgg nañ leen sonnal désolé j'espère que léegi dinañ leen jéem a jëriñ un petit peu comme màgg nañ. ratatati rek nga fi nekkee ratatati rek nga fi nekkee au revoir au ratatati rek tatati rey et eh, eh, léegi man kese di bàyyi fii ah d'accord merci on se retrouve inchallah lundi man ak sama man ak sama wax rek ah. euh, dañ maa coupé apparemment ah. bon d'accord merci on vous souhaite un très bon week-end bonne fête à toutes les mamans suñu yaay yëpp ñu ngi leen di <laughs> <laughs> suñu yaay yëpp euh, ñu ngi leen di euh, ñaanal bu baax euh, dañuy def kane samba kane samba kane samba kane samba kane